asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi yéen ñiy baaxoo di xibaar fii ci suñu site bi la suñu gaal 24 point net comme ni koy baaxoo di defee suñu émission bi ñu dippee xalima gu ñëw nee leen xalima gu ñëw moom du dem seeti lu dul ñi nga xamante ni seen xalima dafa ñëw ba ñëw ci lool tey ki ñu am mbégte di ko dalal moom xam naa ne suñu waxee turam rek ñëpp dinañ xam ne ak ñaankat yàlla la ndax ñu ngi wuyoo si turu Sëriñ Dame Mbacke borom Cramo jaraloon sax ñu di ko dàkkantalee borom Cramo ndax xam nañ ne moo sante Mbacke moom foo jaar man ya defi Cramo euh, sëriñ bi moom mu ngi fii ci Parcelles Assainies unité 17 fële ca Mbour yi da nga fay nekk fa nga xamante ni mooy Saly waaye chef bi dañ lay bàyyi rek nga nuyoo mbokk internet yi laataa ñoo dugg ci laaj beeg إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد إن لي صرف عظيم أن أقف أمامكم أتحدث باسم أستاذ أحمد بامبا خادم رسول wa bismi xalifatil anif sëriñ muntaxa mbakke abqa wallahu bil manni wal karam wa ayyikum jamihan tayyibatan mubarakan wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Mbacke ci na yooyu sell yu tedd yooyu eh, sëñ bi boo sante Mbacke rek xam naa ni xel yu bëri dinañ daj ci ñaan ñu bëri ñu ngi tiim naan amin Mbacke amin na yàlla def jàmm xewal ci ñaan yi nga xamante ni moom ngay defal Sénégal mais Cheikh bi yow sa kiraam moom xam naa waxtaanee ko nekkatul débat ndax ñu ñëpp teg ñu seen bët hmm. Hmm. mais dafa am loo xamante ni ponk la bu ma intéressé hmm. ci ay sorties yoo defoon man ma seetaan ko eh, si ay jamono élection yi boobu nit ñi di wax nga ne kat élection yi moom jàmm mm-hmm. rek lay am. Mm-hmm. donte dina am ay coow. Mm-hmm. waaye suñu doxalee ba ci kanam. dina am ay coow yu bëri man comprendre ma woon ma gisee sa interview bi. ma ne lii c'est intéressant mais tey nag. moom coow li dafa lëmbee loo dëkk bi. yan xeetu mbir ngeen di def ba nga xamante nii di ngeen gis lu mu mel. waaw sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu ñoo ngi leen di fay nuyu bu baax di sant bu baax di leen dara jàmm. di rafetlu laaj bi nga ma laaj euh, laaj bi la boo xam ni euh, ñu bari ñu ngi woot di ko laaj waaye nag booba léegi nag duñu woon duñu duñu sowaar kenn mm-hmm. waaye yéen nag dañu am mbégte mm-hmm. dara leen ndax seen liggéey bu rafet ni ko jaarale yoon mm-hmm. kon laaj bi nga ma laaj mooy loolu fi xewoon ñu laajo ñëw si élection yi ñoo waxoon ni ñu ko waxee ni ñu ko waxee noonu waaw noonu la demee woon booba da yàlla dafa dogaloo ñu duggoon xaloo ba génn yàlla suñu borom wàññu ko tombeek ñoo ñëwoon laaj ñu ko ñu wax leen ko waaye loolu lu leer la loo xam ni coola loo xam ni nag lu yéeme la loo xam ne tamit yemut fii. Mm-hmm. te dina am ñu bari ay kilifa yoo xam ne danañ si daanu. Mm-hmm. coow li sax dina gën a yaatu. Mm-hmm. waaw ndax ni ko gisee. dina gën a yaatu. kon na nga bëgg wax ne révélation yi jeexagul am na yeneen xamante ne la. am na yeneen yuy génn yoo xam bis bu génnee sax coow dana gën a bari. te yooyu yëpp day génn. ndax démb rek seetaan nañu si télévision ñu gis nga xamante ni jegalaale président la mu defaat yenn révélation yi nga xamante kenn rafetlu ko daanaka si yi naa indi yeneen coow yu gën waaw day day gën a métti ndax loolu laa waxoon dama ni woon ñu même ñoom seen biir. Uh-huh. mujj gi day nekk xeex dana am ñoo xam ñu même ñu nekk seen biir ànd ak ñoom sax. Uh-huh. danañ nekk ñoo xam ni dañuy nekk si biir xam ni lii nii uh-huh. lu wér la waaye duñ ko duñ ko ñi may wax fii day dem fii wax fii lii dem fii wax fii lii loolu nag day day waral day nekk euh, bomb lay doon daal boo doy waa daal boo xam ni euh, dina yéeme loolu. lan lan mooy sooke loolu ndax nekkul ab xabtal bu nekk si biir euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ndax ku jéggi nekkul ñu leen di xabtal wala yu waaw nekk na nag loo xam ni lu yéeme la dafa nekk tamit loo xam ni. Mhm. ay yi. Mhm. gisoon nañ ñoo xam ne ay kilifa lañu. Mhm. defoon ay yëf. ay yëf yoo xam ne defoon nañ ko si wàllu baatin. waaye nag yooyu nag dafa toj. dafa toj jamono bii dafa toj te ay kilifaa ko toj toj boobu toj toj boobu mu toj nag moo waral nag maanaam fen fu nekk la mbi di génnee di gën a gis sax ñu bokk seen si ñoom ba noppi di leen contour hmm? waaw di nga ko gis boo ko dee si futur di nga ko gis incha allah. incha allah waaw léegi Cheikh bi ñoom suñu si parce que coow li wul ko nga xamante ni nguur jo nekk commencé rek ab mandat. ah bu ñu si bu ñu si jug di xanaa xool yi borom mbir yi borom yi defi mbir ñu ñu ñu jéem ko saafara. jéem a jéem a fexe daal mu saafara woo. Ah. sinon daal dana nekk nguur koo xam ne moom gëw ma ne yeggam sax dana ma jaaxal lool. jërëjëf Serigne Dame Mbacke xam naa kiraama gi moom doo man naa ko bàyyi yegg ndax nekkatul lu ñuy waxtaanee. Hmm. cheikh bi dafa am lu nga xamante ni souvent. Hmm. boo ci duggee ba génn. Hmm. dafa mel ne yàlla da lay wan. li nga xamante ni moom mooy am fii ak cinquante ans. ci réew mi li ci li ci. li ko wër. Mhm. saa soo duggee xalwa dégg naa soo génnee. Mhm. ñi nga xamante ñoom ngay jëkk a waxtaanal. di nga mhm. defal ay révélation yu bëri. naka ngay defee say xalwa ba nga xamante ni yow du dara la ump ci li nga xamante ni mooy xew ci àdduna ak nit ñi nga xamante ni ñoom ngay dugal xalwa. waaw xalwatu nag moom yàlla sunu borom euh, sunu waajur dafa nekkoon ku nit ku ku yàlla mayoon si wàllu xam-xam. kilifa yu bëri tamit boo ñëwee tuubaa dañ ko doon dugaloo xalwa. Euh, muy koo xam ne ku ñëpp xam nañ si ñaan yàlla sunu borom. ñu nekkoon ndaw taxawoon ak moom. Mm-hmm. foo ñu mës a fekk si moom mu fonko ñu lool. Mm-hmm. ndax euh, li mu ñu doon loo muy mokkal alxaan la ñu santoon ni su ngeen ko defee rek am lu ñu si dikk mm-hmm. ba yàlla defee ñu def ko jox ko kaamin. mu jox ñu lu bari. suñuy maam yëpp tamit dañoo nekkoon ñoo xam yàlla mayoon si xam-xam lañ. xañ na loolu ndono la daal lu yàlla dogal la si ñun. waaye nekkul loo xam ne ñu ñoo ko sàggu suñu bopp. yàlla def na xalwatu moom lépp lu ñu bëgg def dañ koy def si xalwatu. mbir dëgg bu ko bëggee faj xalwatu la ñuy dugg te saa bu ñu ko duggee rek lépp luy xew suñ borom dañu ko wan ñuy jege te xam ñu. Mm-hmm. xam nañ ñu ñu bëri sax ba dara xewee dañuy ay kilifa dañuy woo téléphone. Mm-hmm. ni ñu nu ko gisee nu ko jàngatee ñu wax leen ci li ne leen bind leen ko. Mm-hmm. te noonu lay demee te du dañ. waaw man kay nag wax nañ ni ma ne d'ici cinquante ans sax soo duggee xalwa dinañu la wan li nga xamante ni moom mooy xew ak alentour beeg nit ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a nekk au pouvoir ak ñu si war a génn. Euh, sëñ bii man damay continuer waat ci beneen laaj nga xamante ni dafay soxal jaamu yàlla yu bëri ndax. Mm. aduna moom bu la hmm. yàlla waroon yow jàmm bi hmm. ñi nga xamante ni dañoo mel ni man zaayre lool hmm. xamuñu sax lan la ñu war a añee suba mais ñu bëgg a dugg ci benn mbir te xamuñu lan moo gën ci ñoom am na lu nga xam ne nañ ko tuddee listixaara ngir li nga xamante ni loolu moo gën ci yow bu ko jëlee euh, ngaa bañ a dugg ci yan nit taw xidoona yi ndax cheikh bi yan euh, listixaar nag ngeen si jëflante doomu adama waaw euh, dama koy def si bu ma ko jot gi mayee. Mm-hmm. yenn saa yi nag jot gi duma ko may. Mm-hmm. ndax suñu liggéey moo demee noonu. Mm-hmm. waaye buñ ko du képp kuñ ko defal lépp lu lépp lu nekk si mbir. buñ la ko waxee dara du ko dindi moom. waaw bu ne la woon ñetti fan si àddina ñetti fan yooyu doo ko génn. Hmm? waaw nañ fi nit lu mel noonu mu wax koy mbokkam yaakaar naa ni loolu rawut. Hmm? waaw loolu moom luñ si def dara du ko dindi moom. loolu yàlla may nañu si bu baax a baax a baax. waaw mais léeg waaw loolu lu ëpp sax des fois sax ñu gis loolu doy waas ne duñ ko ko wax. Mhm. dañuy fexe rek wax ko la koy saafara yoo xam ne bu nit ñi seen bopp yi tolloowuñu. waaw koo ne boppam dafa woyof doo ko wax yenn ngay fexe rek ba indi la koy saafara rek nga wax ko waaye doo ko doo ko doo ko doo ko teg fitna. am loo xam ne day teg nit la fitna ki fitna. waaw waaye mën ngaa xool ñamu àndal wala ñamu ñamu fekkee nit dina feebar feebar yoo xam ne day ñëw fii ñu xool ko wax ñam àndal ñu leen du wér kenn mënu koo faj. jërëjëf sëñ Mbacke gis nga li nga wax moom mooy tax. Mhm. ma bëgg a tàbb ci beneen laaj bu nga xamante ni dafa mhm. intéressé Sénégalais yu bëri. Mhm. ndax jamono ji ñu toll dañoo toll ci. dërmal ab compétition muy euh, équipe nationale war a dem Coupe d'Afrique. war a xëccoo ab raaya bu nga xamante ni raaya continental la. yow comme yàlla nag may na la ci gis li nga xamante ni moom mooy ñëw. ak yenn tolof tolof yi ñu ca war a mën a am lan moo koy war a fànq équipe nationale bu Sénégal lan nga ci gis. waaw équipe nationale bi mooy football ah, nekk na loo xam ni moom Sénégal yëpp ñu ngi koy bàyyi xel. Mm-hmm. waaye dafa am loo xam daf see nekk. Mm-hmm. te feek ñi nga xam ñooy dirigeants yi dindiwuñ ko. Mm-hmm. Sénégal du sori ci benn football ay def-def la yoo xam ay nit a ko def te dafa yàgg nag. waaw wax ne yooyu euh, ah, am na ñu leen koy dindi da xaj dindi ko ñi ngi ko def fu kawe lañ ko def fii si dëkk bi. Mm. mi ngi fay feek moom fay nekk. Mm. Sénégal moom coow dina bari rek waaye day dalaat rek. coupe d'année yaa ngi ñëw Sénégal nga xamante ni yaa ngi ñuy topp ci émission bi di xalima gu ñëw tey dalal ki xamante ni xalimaam dafa ñëw trop di Serigne Dame Mbacké borom kiraama yi euh, ay numéro téléphone am maa ko jox ci suuf ndax dama bëgg équipe nationale gagné coupe d'Afrique bi ba mm-hmm. tax nit ñi mën a jëflante ak moom ba nga xamante ni def-def yooyu dinañ ko dindi wala lu wëri ñu nga xamante ni dañ koy indi tax kat euh, sëñ bi moom woowul kenn ci boppam waaye daal def def yooyu bu ñu ko dindiwulee moom kenn ko mën a dindi rek baax na waaye ni ko saafarawul rek mm-hmm. incha allah numéro téléphone yi ma leen di jox mooy 77 794 72 72 wala 77 233 31 95 mais Cheikh bi ba léegi du ñu yem foofu mm-hmm. ndax ba léegi am na lu nga xamante ni yow da koy def ay mm-hmm. kéemtaan la ci xëccoo te xëccoo la jëm donc am na lu nga xamante ni au moins ñu ko defaree dinañ mën a am ndam waaw bëri na am na sax ñoo xam ñi si biir ñoo mhm. xam ni dañuy jëflante ñoom mhm. ah am na ñu siiw ñu ñëpp xam ñoo xam ne dañuy jëflante ñoom si wàllu seen lépp ñoo ko yore waaw te instant bi yaakaar naa ñëpp xam nañ leen kenn kenn kenn kenn dàq leen dugal de <laughs> <laughs> waaw fii si dëkk bi te dañuy jëflante ñoom ah. waaw fekk nañ leen fu nekk de def leen lu nekk de ñooñu day ba léegi ñu ngi suñu moom ñoo leen di yore lépp. waaw. Ah, Mbacke borom kiraama yi xam naa ne nag euh, modeste ak euh, lii mais comme man maa sàkku jotaay bi. dinaa la jéem a sëkkatal donte euh, def sa sëriñ sax yar ni liwul mais comme émission bi moom. Hmm. partage xam-xam moo ko tax a jóg. Hmm. foog ñu xaw a soññu ngir nga lii ñu. Hmm. donte doo bëgg a wax yenn yi. mais li nga xamante ni ginnaaw xëccoo football ak yu mel noonu. am na li nga xamante ni dañuy bëgg place. dugg ci ab entreprise dem ci. sori. xawee mhm. lool. Mhm. am ñoo xamante ni dañuy bëgg dem concours wala examen bëgg a xëccoo am ndam. Mhm. Ah, cheikh bi loolu moom yaa ngi si jëflante ak doomu aadama yi doon te bëggoo sax si wal yi nga xamante ni yaa ngi koy def ci ay kiraama. waaye ñun dinañu la ko laaj ndax émission bi moom moo ko laaj comme dañuy tasaare xibaar. te xibaar yi nga xamante ni dafa baax rek moom la ñu bëgg a jébal ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu topp ndax ñoom ñoom ñoo tax ñu nekk fii cheikh bi eh, laaj boobu nag dama bëgg lu tasal ma ko bu baax li nga xamante ni <laughs> yaa ngi koy def ak nit si ñuy bëgg place bu baax ñu bëgg dem ci kaw Mm-hmm. waaw jërëjëf loolu danañ si leeral waaye xam nga loolu moom dafa nekk loo xam ni mm-hmm. ah, euh, dafa nekk lu am solo ndax doomu aadama bu nekk yokk la bëgg mm-hmm. te nit ki bëgg a yokk rek te bëgg koo teg si lu neex yàlla suñu borom kooku moom jàppale ko day am solo ba tax na loolu moom dañ siy jàppale ñu bari koo xam ne da nekk si entreprise bu mag bëgg faa yokk wala ñu lay xeex bëgg la faa jëlee wala ñu lay gàllankoor loolu wala ngay xëccoo examen bu mu mën a doon am na loo xam bu ñu ko liggéeyee moom kenn mu laatee am kenn mënu laa tee am. Mm-hmm. si kàttanu yàlla. liggéey bi ci lan ngeen koy faral di def lu muy lekk la lu muy sangu lu muy takk wala lu muy raay. déedéet bu fekkee ni bu fekkee ni koo xam ne ku ñu xeex la. Mm-hmm. am na lu ñuy liggéey loo xam ne dañu ko liggéey si jaas yi. Mm-hmm. jaasi bi dañ siy dañ siy liggéey gis nga lii xam nga xaatim la bu ñu bind ay tur teg ko stade ba muy tàng ñu sikkar lu ñu sikkar diir bi ñu koy sikkar mën nañ laa wax ni la bu fekkee fa war a woo la ñu la woo ko téléphone wax li nga bëgg wala bu fekkentee ni ñoom mën ngaa bañ woo ñoom ñoo lay woo téléphone euh, wax la sa aajo bu fekkee ni loo xam ni da nga koy da nga koy xëccoo koo xam ne da ngaa bëgg si moom dara waaw am na loo xam ne tamit lu ñu lay jox la rek nga jëfandikoo yow nga toog xaar leen juróom-ñaari fan lañ lay may waaw loo jëfandikoo la rek. loolu yenn la rek si say kiraam ah. loolu yenn la rek <laughs> yooyu ndaw rek yëpp kenn mënu ko wax. yenn la si say kiraam mën ko yëpp kenn mënu ko wax. Euh, am na lu nga xamante ni euh, ba léegi dafa lëmbee jamono. Mhm. maanaam àdduna bi euh, kër yu bëri dañoo tas. Mhm. ndax soxna yi tey léegi mu bëri lool ci jamono ji góor ñi nga xamante ni matale wuñ seen boor ay jigéen nga xamante ni matale wuñ seen boor te loolu léegi na yaa ngi koy def discrètement ak ay couple yi nga xamante ni yaa tegaat ci yoon hmm. nga xamante ni ñu ngi am la ñu bëgg seen sëy sëy kat yàlla moo ko santaane ndax hmm. sëy moom hmm. euh, bégal góor géen ku jigéen ki yëpp daf cee bokk euh, ndax yooyu it seex euh, bi yan secret nga ci nekk dafa nit ñi waaw man yooyu maa ngi si liggéey lu doy waar loo xam ni yóbbu naa ko fu bëri sax si àddina bi xam nañ ko yóbbu naa ko si ay kii yu mag yoo xam testé nañ ko xool garab bi ba jamono yi sax ñu ngi si liggéey bi nga ko bëgg a def benn comprimé boo xam ni bëgg nañ koo indi Sénégal euh, wan ko yéen journaliste yi ngeen ñëw ñu wane ko ñu xool ko xam ni waaw ñëpp gis ko man di ko jëfandikoo te loolu traitement lay nekk dañu daal liggéey boo xam ne boo ko jëfandikoo yow su jëmmi bopp euh, da ngay mën a boo nekkee moom rek man dara bu ëllëgee nga jëfandikuwaat waaye yooyu dañu amul solo mm-hmm. si dañ gën a xama yokkaat suñu xam-xam mm-hmm. ba nga xam léegi dañ koy traité nga koy tuur ndox ba lépp set si lii la ñuy raxas ba mu set mm-hmm. ba nga xam léegi da ngay mel na nga meloon moo xam kuñ takk xarwa lépp dañ koy dindi waaw loo ne léegi moom moo waral euh, mbir yooyu noonu xam ne nit ñi daal vraiment euh, seen kattan daal du demee nii comme bu njëkk waaw léegi nag euh, gis naa tamit lu bëri wàllu wàllu liy jëfandikoo la si wàllu lekk gi mm-hmm. wàllu lekk gi la am ñoo xam ne stress bu fees boobu bu fees mm-hmm. ak coono yu bari dina ko def mm-hmm. waaye su bëri liy jëfandikoo ak suukar si lekk gi ñuy lekk xam naa ni moo waral lu mel noonu moo tax ñun léegi dañuy raxas sidit yi ba mu set ba nga delluwaat nga mel na nga mel euh, sëñ bi Mbacke mënuñoo tàggatoo te du nga xamante ni kiraama la euh, xamante ni dafay rek boo ko solee lépp lu nga xamante ni gàllankoor la. yére boobu koy defaree ak ñun yére bi jërëjëf euh, yére bi ñetti xob lay doon. Mm-hmm. yére bi dafa am lu koy liggéey yére bi dina am lu ñuy liggéey loo xam ne dañ koy def fenn foo xam ni mm-hmm. juróom-ñaari fan. Mm-hmm. lañ koy lañ ko fay def. am luñ koy booleel loo xam ne moom lañ koy jaxaseel. liggéeyee ko jël jël tiise bii nii ñawee ko ko. am loo xam dañ ko bind liggéey ko yaasin 41 yaasin. léegi téere bii li àndal lépp boo ko takkee bul tiit dara si àdduna mooy kaaraange goo xam ni maanaam boo ko takkee juru nga takk benn kaaraange parce que kaaraange kaaraange kaaraange kaaraange kulluhum la waaw mooy kaaraange goo xam ni euh, amul amul limite amul limite moom tamit euh, dina ànd ak tamit benn saabu boo xam ni danañ ko liggéey saabu tam boo xam ne boo ko sangoo moom tamit kaara ba ba raxas sa yaram ba mu set moom it lépp lu nekk sa yaram si gàllankoor ak yu mel da koy raxas bi daal ñoom laay indi ay kaaraange baaxal dafa am yoon dafa am nu ñu koy liggéeyee. Hmm. Eh, yére bi kenn du ko liggéey bëccëg. Hmm. guddi lañ koy liggéey. waaw guddi lañ koy liggéey mais kenn du ko liggéey bëccëg. Hmm. parce que du gis te du gis naaj soo koy liggéey fekk pare woo si fekk fekk pare woo si waaw. mais mm-hmm. Cheikh bi Mbacke say moom xam naa ni waxtaanee ko ci ab émission xaju ko comme mm-hmm. jox bi mm-hmm. mayu la ko bu baax eh, nit ñaa ngi lay xaar ñenn ñu bari ñu ngi bëgg a jëflante yow waaye ñun dañ ñëwoon nañ ci broxlu rek. ndax ñu am lu nga xamante ni dañ ko jëlee ci yow jëbal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp. ndax it ñu eh, may bi nga xamante ni ku ko def. say mbir mën naa wala say mbir mooy. waaw euh, alhamdulilah euh, danañu baaxee doomu aadama képp ku sénégalais. Mm-hmm. ak fooy ay mën a nekk li njëkk jox rek mooy kaaraange. Mm-hmm. képp koo xam yàlla suñu borom mënal na la nga mën a euh, jàng alxuraan. Euh, nga def euh, fatiru kitaab juróom-ñaari yoon. nga def naas juróom-ñaari yoon. falaxe juróom-ñaari yoon. nga def li ilaafi xoreesin juróom-ñaari yoon. def inna anzalnaahu fi xadri juróom-ñaari yoon. la xad jaakum juróom-ñaari yoon. ayatul kursi juróom-ñaari yoon. incha allah rabbi nga tifli ko su ndox. sangoo ko kat kaaraange gu ma sëkk la jamono bii ñëw muy néew bi nag jamono bu tàng la boo xam ni accident yi dina bëri ndaw ñi tamit ñu bëree bëri bëri dañ gën dañ si ñàkk seen bakkan képp koo xam ne ba nga seen mucc ñu ngi lay wax ne la na nga juróom-ñaari xob yi baftaan yu waw nga yoo xam da ngay fekk mu mu wadd suuf yu yu yu yu dëpp yu xoole nga for ko nga xooj ko si ndox nga sangoo ko incha allah rabbi musiba yi xew yëpp da nga si mucc si kàttu yàlla. jërëjëf Mbacke. incha allah naa ci début émission bi xel na bu ñëw moom du seeti ku ku xel maam ñëw te yow Mbacke da bokk si ñi nga xamante ni buur yàlla def leen cërale ci pays boobu. Euh, Mbacke ñu ngi lay jërëjëfal ndax euh, kat euh, waxtu wi moom. Mhm. xam naa liñ ci jël ci yow ak ñi lay xaar bëri na lool. Mhm. waaye ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax rek nga tàggu mbokk internet yi ñu dem ba beneen yoon incha allah. Mhm. nga yombalaat ñu ko rek comme ni nga di def ak ñun. incha allah waaw ñoo ngi leen di sant bu baax di rafetlu seen liggéey. di yàlla suñu borom matal liggéey bi ngeen def lépp bëgg ñëpp am xam-xam bëgg ñëpp xam yàlla na leen si yàlla jàppale te dooral leen ñu ngi nuy ñëpp nag biir réew mi bitim réew ñëpp. foo mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu di ñaan yàlla suñu borom defal la jàmm di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.